mais ay financement yu tëgg ci ay conditions yu oyof maanaam bu nekk condition ci financement suñu xel day dem ci taux d' intérêt yi ndax intérêt yi xam nañ ni sono nañ jigéen bu la lebelee ñaar fukki junni nga war a fay ñaar fukki junni juróom wala fanweer lool day metti ndax ñaar fukki junni liggéey indiwaat war fukki junni jafe nanga gis liggéey bu ko man kon nag taux d' yi ni ñuy defoon gën a wàññeeku dafa bokk ci suñu combat ñun dans le cadre du financement bi ñu jox mais également bu nous waxee ni conditionnalité pour nga am financement bu yomb mooy lan mooy les conditions d'accès li ñu les conditions d'accès au financement moi les ouvertures de compte bonne salam salaamaaleykum ci ben mutuelle nga ni dama bëgg financement lu la njëkk a laaj dama ubbi compte ouverture compte ba lu mu tuuti tuuti sa ñaari junit la fa dess. boo ubbee compte ba pare bu la waree financé dinañ la demal nga liggéey ba nu xam sa liggéey ak ni muy dox ak ni muy demee ba pare man nga daw ci ñoom weer walla ñaari weer wala juróomi weer doog a am financement ci ñoom bu loolu weesoo bu loolu weesoo dinañ la ni boo bëggee ñu financé la jox ñu caution bu dee un million nga laaj ñu la 10 pour cent ñaar fukki junni ci compte bi bu dee deux millions nga laaj ñu la deux cent mille francs ci compte bi jigéen bi ñëw dugg ci un million jàpp naa ne bu amoon ñaar fukki junni du ñëw ci yow kon loolu mu nekk également contrainte boo xamante ni dañ koy gis ci liggéeyu jigéen ñi caution ba ba weesoo lu bari na la ak garanti bi nga ñëw ñii dama bëgg crédit nga ni 3 millions wala 5 loo koy doyee nga ni damay liggéey ñu ne la damay indi kayitu kër wala damay indi kayitu oto wala damay indi mobilier ma jàpp ni jigéen ji war a laaj 5 millions ku dem liggéey bu amoon kayitu kër du ñëw ci yow di la laaj 5 millions ndax nag kayitu kër moom lu mu dee dee ëpp na 5 millions jigéen ji bu amoon possibilité dem wuti crédit feneen du ñëw ci yow di tayle oram kon or ba mu am mën na koo dem jaay liggéey loolu yëpp mu nekk ay conditions yoo xam ne gis nañ ni dañoo gën a sonal jigéen loolu moo tax ci nga xamante ni président Macky Sall moom la sant ñi naka la def ba jigéen ñi gën a mën a yomb jot ci crédit liggéey boobu nag ci sa ci la sama équipe technique yi nekkoon démb ba tey ak yéen di xool naka lañu mën a def ba ngeen am crédit ci ñaari fan crédit ci ñaari fan ci Sénégal gëm naa ne amagu fi nga déposé rek.

ñaar téeméeri million boo xam ni dañ cee ànd ak sunu partenaire bi IMSEC indi leen ko jébbal leen ko mu nekk financement boo xamante ne xaalis la liquide mais bi boobu weesoo ñu ànd ak suñu programme boobu ñuy wooye PADES ñëw fas yéene ànd ak juróomi unité juróomi unité yoo xamante ni kenn ku ci nekk montant bi gën a ndaw bi ngay jot ci financement 10 millions la boo ko boolee ak li ngeen indi ci xaalis

muy financement boo xamante intérêt ou en tout cas intérêt ba de na ba vous ñoo mais financement amul ouverture de compte amul caution amul garantie Le président Macky Sall mi vous sant nag def ni ma vous ci am bu ci am Vous vous gauche vous droite Sénégal di tu ci donc on lance un appel à toutes les femmes de Tambacounda amour parti amour couleur c'est n'est pas parce que ànduma ak que duma am ci financement Ou wala n'est pas parce que ànduma a honorable am que duma am ci financement financement président définitivement. ni ma financement boo transcender les clivages madame amul dama bokk fi wala dama bokk fee képp ku ñew indi sa femme say groupement de femmes liguey bi nak dañ ko xawa organiser ndax li fi daan xew avant mom lañ bëgg dindi jigéen ñi dañ doon ñew ni dama bëgg nga financer ma samay jigéen ñu jël ay millions yu bari jox la nga yóbbu sa kër tànn ma paate bàyyi ma samba tànn gauche tànn droite boobu xeetu financement boobu xeetu financement lañ fi jëlee président Macky Sall daf ñoo bu ñuy financé jigéen ñi buñ ci xool kii bokk fii wala ku bokk feneen képp kuy jigéen te ngay am say financement wala am sa besoin de financement boo ñëwee ba ci man fekk ma fi dinaa ànd ak yow dinaa la financer ndax loolu lañ ma sax kon na ci seen dal te xam ni bu soobee yàlla financement yi dina wër comme ni ko président Macky Sall bëggee waaye bu loolu weesoo président daf ñoo sant ni xaalis biy génn di jëm ci jigéen ñi takku na maanaam amul façon financement bu ñu tëggul jox ko jigéen ñi ñun de ba nu juddoo ba léegi ñoo ngi dégg ay financement yu jëm ci jigéen ñi dégg naa ay financement yu jóge DER yu ñëw ci jigéen ñi dégg naa ay financement yu jóge FONGIP yu ñëw ci jigéen ñi dégg ngeen léegi mu annoncé ay financement yu jóge fii ci ministère de la famille nara ñëw ci jigéen ñi mais li am solo nag mooy dafa jot ñu taxaw sepp ndax xaalis bi ñuy jël di ko jox jigéen ñi ndax dëgg-dëgg am na njariñ ndax li ñu dugal bari na te ba léegi jigéen ñi tey lañ gën a soxla financement kon jàpp naa ni war nañ mën a càmbar aussi li ñuy liggéey càmbar li ñuy liggéey nag mi ngi tàmbalee ci ñun li ñu décidé def mooy dañuy jàppale accompagner les unités de production maanaam xaalis bi dootuñu ko joxeti ku amul unité de production

maanaam fukki jigéen bu ne bu la financé jéewo dañ lay jël accompagner la ba nga teg unité de production bëgg naa fii ak at bu may ñëwaat Tamba ñu ni financé woon nañ cent groupement de femmes am nañ au moins cent unités de production yu teg fii ci Tamba